Tuba ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min wa sallallahu wa sallam ala sayyidina walana muhammadin ala nabi wa ala alihi wa sahbihi xadimi ñu sant yàlla bu baax julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant Sëriñ ay barkeem te fayal na ko sant Cheikh Mamadul mi ma booleeg Sëriñ Tuuba ñaan ay barkeem te fayal ñu ko di sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Sidil Mokhtar xalif général des Mourides mu fi loolu te ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko ci sago dana fekkee ko te ànd ko moom ci di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñëpp rek fu mën a nekk ci biir Amérique ak ci àdduna si ak fu mën a nekk di ñu seetaan ñu leen nuyu leen sant leen gërëm leen balu àq leen baal àq leen ziara di leen ñaanal di sakku ci ñoom ñaan di sàdd sànni ay kàddu fii ak yéen nag ci barab bu tedd bi nga xam ne ngeen ko gisee barab bu Serigne Touba la bu nekk fii ci Atlanta Georgia ci Amérique mbokki taalib yi fi nekk fagul ko fagul ko Serigne Touba Eh, jënd ko def ci seen alal sonn ci lool muy barab bu yéeme boo xam ne dafa njëkkoon nekk jàngukaayu eh, chrétien mu jógee fa dem ci ay jullit jullit yooyu ba ñëw ci loxo yi wàkk Sëñ Tuubaa fii di jumaa ji nekk ci biir barab bi ñu leen fi nuyoo di leen fi sant leen ñu def ci seen coono ak seen liggéey sonn ci lool mu dugg ci cadre fondation bi nga xam ne eh, Serigne Mame Mor Mbacke moo ko taxawal fii ci ndigalul Cheikh Sidil Mokhtar jóge woon ci ndigalul Cheikh Sidil Mokhtar mu mu ëmb taalibe yi nekk ci Amérique yëpp ñu war cee booloo bennoo ci di yëkk yëkkateendoo di tegandoo lii di benn élément ci biir liggéey boobee ñu sonn ci lool nag muy liggéey bu rëy ndax xam ngeen ne amoon na fi kër Sëñ Tuubaa yeneen ñaar yoo ko jiitu woon waaye euh, lañ ca bëggoon ña ngi ko am sax waaye dañoo mbirum Sëñ Tuubaa day yokk saa bu moo tax mu yokk yoonu njëkk wa bu am kër gu mel joxoon ñu nekk ci dafa liggéey di fa julli ajjuma di fa daje di fa daayira waa sëñ di fa dal ba yàlla def loola yokk ba foofa xat ba ñu am barab bi kéemaane lool nag nga xam ne dañ ci ndokkeel leen ci ñaanal dañoo xamal ne gis nañ kër sëñ Tuubaa yu bari nag waaye fa tabarakallahu kaar eh, liñ ci gis ko kër gu toll nii bariwul muy kër goo xam nag ah, alal yu baree ko jënd ñu def ko ba jot ci waaye mu des nag luñ ci war a mottali ak réflexion yi ñu ci war a defaat nga xam ngeen ne kër moom liggéey ko daanaka du àgg dañ cay nekk rek ba eh, saa ba fu man man yem buñ ko jotee nag dañ bëgg na nekk li sëñ Tuubaa waxoon rek wajal buyuti kullaha masajida yaa naafiyan man la yasju man laa yakunu sajida yàlla nga def sama kër yëpp mu nekk ay jumaa nekk ay jàkk nekk ay jullikaay yow mi nga xam ne yaa ma dàqal ku dul ku dul dul ku dul ku dul ku dul eh, kon yàlla def na loola waxaat feneen ne bil Moustapha li banal qudduusu madrasatan biha yazurul adaa wal jahlu wal kabadu kon kër Sëriñ Tuubaa yi ay jàkk la war a nekk ay jumaa kër Sëriñ Tuubaa daara la war a nekk ñu jàng alquran dafa jàng diine dafa jàng xam-xam dafa jàng xeeti xam-xam yëpp dafa yar eh, eh, njaboot gi fii nag ñu bëgg mu nekk centre boo xam ne de rayonnement dafay wane euh, mission sëriñ bi di wane mbindum sëriñ bi di wane liggéeyu sëriñ bi di wane yaru yarinu sëriñ bi mu bëgg ñu bëgg mu nekk modèle boo xam ne waxuma la ci Amérique waaye àdduna sépp danañ dem ba ci ba di ci roy ndax ay mbokk taalibe yu positif yu dëggu yu ñu xam ñoo ko jiite def ci sacrifice yu mag def ci seen alal def ci seen temps def ci seen xalaat def ci seen xol def ci seen àndandoo ba yàlla taxawal ko nii ñu bëgg a def benn fundraising boo xam ne dañ ci woo àdduna sépp bëgg ñu taxaw ci bokk yi taxaw ci ba li ñu bëgg ci kër gi lépp ñu mën ko cee def ndax des na ay réflexion yu bari ñu fi war a def ci wàllu dëkkukaay ñu def ñu bëgg defar jullikaay moom ko gisee fi fi la ñuy defee waxtaan wi noppi na waaye tu yàggoon mais dana am salle de conférence bu bëgg a yokk ak salle de classe yi ko defaraat bëgg nañ fi def ay dalukaay bëgg nañ fi def ay defar yoo xam daal yu ndaw gën a taral kër gi la gën ko dëkkoog lu ñu tuddee Sëñ Tuubaa ndax lu mu tuddee suñu tool nekk dafa dafa nekk dafa war a nekk la war a gën war a gën ci taaru war a gën ci sell war a gën ci dëgër te la dëkku taw la dëkku kër boo boo ko boo jotee suñ kër yi ñu dëkk sax ñu jotee dañ koy defaraat ña ngay peinture ña ngay càkk-càkkal ña ngay raaxaat ña ngay def lu ne kon waxuma la fii nga xam ne kër Sëñ Tuubaa la kër Sëñ Tuubaa bi ñu ko jotee nga xam war a nekk a nekk a nekk juma war a nekk ay dalukaay war a xam ne dañuy képp ku am loo bëgg gëstu diine képp ku am loo bëgg fee war a mën a ñëw gëstu ko fi fekk ko fi mu nekk centre de traduction boo xam ne danañ dem ba mbindi sëriñ bi danañ ko mën di traduire def ko ci ay bibliothèque ne numériser ko ku bëgg gëstu foo mën di jógee boo ñëwee da nga ko mën tàmbalee fii te te ñu fexe ba mu bëgg ba mu nekk modèle boo xam ne mbokk ci des yëpp dañ ciy roy mbokk ci des yëpp dañ ciy roy ndax lii jombul kenn ci ñoom te ñoom ñëpp lañ ko defal ndax sëñ Tuubaa lañ defal kër gi te sëñ Tuubaa nag ñëpp ko bokk kon dañuy ñaan rek di woo yi tàmbalee ko sama bopp mbokk yëpp rek ñu jàpp ci ak fi mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew dugal ki seen loxo xam ne lii effort a koy def xam ne lii ah, ñuqee koy joxe du caageenu ay yéene yu rafet parce que ñu ko ñi ko defar ba mu taxaw ko ba mu agsi fii su fekkoon dañoo toog seen kër rek di yéene yu rafet ak a wax rek du sotti waaye dañoo génne seen ñaq xam ne Sëñ Tuubaa mi ngi ko defal jaral na ko yeeyee na ko mérité na la ko ëpp ñu taxaw ji kon ñu ciy woo mbokk yëpp ci boobu ak jàmm bu ñu ci àggee jàmm yëpp jàpp ci fundraising bi ñuy def ñu fexe ba liñ bëgg taxawal daal ak nu lim ba mën a toll ñu mën ko weesu ndax damay wax ne yoonu yoonu murit moom ba mu tàmbalee ba mu ngi tàmbalee ci yoon ba mi soso dañ ne woon tàkk tàkkul mboob du yàgg sëriñ Tuubaa bi ñu ko coppate yóbbu dañ ne woon du dellu ndax Tuubaa bi dem dellu si mu dem si bàyyiwul la mu doon wax soo xut amutum liggéey yëf yi gën a jëm kanam jumaa ji bi ñu ko rëddee Cheikh Amadou Moustapha radiyallahu anhu ko rëddee ñu xamutoon dañ ne woon sëñ Mourou jumaa ji du àgg ndax yaatuwaay bi ak fi seen Sénégal toll woon booba gis nga mu àgg ba sëñ Fallou àggale ko julli ko ba sëñ Abdoulaye yokk seen Saliou yokk seen Sidi yokk ne yàlla na ko Serigne Touche xam mu Moussa bi muy tàmbali bi muy tàmbalee raay bi dañ doon mënta nekk donc ci lañ mas a gis ay privé yu gas raay yi saxaar da ci dal di ci jaar di indi ay marchandises di indi ay nit ndax lépp tubaab yaa ko doon défier pour jàpp ne liggéey bi du am kon lu ñu fi mës a tudd rek dañuy wax ne ko sax gi itam li ma xam mooy li ma wóor mooy dana àgg bañ yokk ko ba ñu daal yeneen kër bokk ci ndax tàmbali baa mel noonu am na jamono ku ne woon taalibe danañ ñëw fii ci Amérique di fi taxawal daayira di fi waxtaane Sëriñ Tuubaa la ku ne woon daayira danañ dem bay jëndi kër waxuma la ñaar ba ñetteelu kër nii da nga defee loolu ay léeb la waaye loolu lépp mbirum suñ tuwaay am lu mujj rek ëpp kon nañ góorgóorlu bu baax nekk ñun suñ tuwaay féete na la foo xam ne mënoo fa féete sa bopp xam nga ne moo gën ci yow la ma waxoon la ma waxoon sëñ sëñ Babacar Jaxate rek ba mu ko ne yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay yaa ma gënal lu ma am yaa ma gënal ku ma am da ko ne Babacar wax ci wax ji baax na waaye ma jubbanti la ko mu ne ko Mbàkke yow ko jubanti dootu juum mu ne wax ne yaa gën ci man sama ndey dégg ngeen ko ba tey yaa gën ci man sama baay yaa gën ci man lu ma am yaa gën ci man ku ma ku ma am kon nag ñun xam nañ ne Sëriñ Tuubaa gën ci ñun lépp ku moom kon nag dañoo war a jaral ñu jaayante dëggu liggéeyal ko bi taxawal ko waneel ko mbiram mi ndax ak ñun kenn ku nekk féete foo xam ne kenn mënu la moom kon yàlla nañu ci yàlla dimbale ñu taxaw ca àgg ca ak jàmm dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin am ci lim boo xam ne fooguñu ko woon te mën naa am rawatina ñu dëppale ko bisu soxna jaare bi nga xam ne radiyallahu anha bis bu barkeel la bis bu rëy la bis boo xam ne bisu diina jëpp la soxna jaara maami ñëpp la soxna jaara eh, maami ñi ñu baax ñëpp lañ te doy na ko liggéey doy na ko ndam ko mel ne Sëriñ Tuubaa ak i bokkam kon bis boobu buñ ko dëppalee bisu ñaan bisu barke bisu bu ñu am yaakaar boo xam ne dañuy ñaan rek àgg ca jàmm te lañ ci yéene lépp rek yàlla defal ñu ñu am ci lu koy suñ jot ci barke borom Tuubaa ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wa axiru daawana an alhamdulillahi